والقلم وما يسطرون بدأت ببسم الله والحمد أولا جلاي اقتباسي ويل جمال نيو كربلا لكانغام يا دا باكو كمبوري كتب دي دال جلا خيدي لاتيانتو كفال خطب خوزلا kafal xawsu baddil awliyaa yi ma ber fale ma def xejj buñ xejal ci waar wi ne jinne laa ndon ak jàng laa booleeg mayuk yàlla bay imaam bu seen wayi de jàkka li may bind xibla laa asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa fi ngeen ma dugal xat na moom diggante sëñ Amdi ak sëñ sëñ Baye Lamine ak sëñ Ahmadou Baas moom xat na lool fob leen galeen yi jóg te foor junjuñ yi jiin ko fépp riir géew leen ma bàkk waada piir kii dekkalaat fi daaq xalim foor yi fob leen galan yi jóg te foor junjuñ yi jiin ko fépp riir géewleen ma bàkk waada piir kii dekkalaat fi daaq xalim bu leen ma woowal ibbu juuf mbaa baabu ngoom kon wayu soof desiti njàmme ma tuuf jox leen galeen bi kor mareem moo namp meenum faailaat tey jiin dëndu mustafilaat dar leen ko yen ñi neexe baat tey seetu raes moom la jëm joxleen ma weer ak almiñoŋ ndax ma defal ko woy wu ñoŋ ndaanaan di diir nga jam nga ñoŋ doo reere yann wuñ xorom yembal nga mbir ya yombuloon yombal nga yëf ya yembuloon bindal nga daa ya jëmbuloon bindal nga gaa ya jambuloon seen daa yi xel ya ñuy xalam yembal nga mbir ya yombuloon yombal nga yëf ya yembuloon bindal nga daa ya jambuloon seen gaa yi seen daa yi xel la ñuy xalam jeexiiti daara mooy royaat ci seen siddiit yi yor xalaat lu ngeen jëmbat mu jebbi naat lu ngeen fi soobu am ci ndam yaatal nga mbindum alxuraan feeñal nga njoogu ak baraan teqatle tikkan ak jaraan delloo si àlliwoo xalim taaral nga kër yi bam ne boy yaa tax na gont dab ña xëy lañ boo yoloon nga jëkk a bay siggil sa ngóob mi am na ñam c'est yaa tax ba néew ju doole jot ci rampe escalier yu net Belgique amul lii ngeen ñu yët yëtuñ ko waa Jérusalem yaa tax ba néew ju doole jot ci rampe escalier yu net Belgique amul lii ngeen ñu yët mayuñ ko waa Jérusalem qualité ak fiabuloo xam naa da ngeen di kompaloo yaa natt mbub ma muy solo profession si yéen la yam day sociale waay société day sociale waay social nga jàpp def ko waay ngeen ànd nekk benn waay buy bay ci tool yi askanam lu ñu soxla rek nga dem wuti yombal nga lépp luy wuti ku yegg ak kuy ñot-ñoti ku nekk jox nga ko cëram xam-xam bi ak xereñ gu yaa gi wax nu foo ko tarbiyaa yaa tax nu gétti indo yaa ci ay dekoor yu raw ngalam <laughs> xam-xam bi ak xereñ gu yaa gi wax nu foo ko tarbiyaa yaa tax nu gétti indo yaa ci ay décor yu raw ngalam waa mi deetul séentu weer yaa tax nu jot ci ngën ji weer yaay ndomma woon bi léeka leer amoo ci Afrika morom waa réew weer ndax yaa yaa ñu jot ci ngën ji weer yaay ndomma woon bi lii ko leer amoo ci Afrika morom dàqante nga ak gaa yu Europe bañ ne pirip nga nekk ko topp ko lay xebet yàlla nañ ko rob kenn dootu dégg ay mbiram dundoo ci kaw askan wi rekk am ko mu réy taxtil nga jóg sa yitte mooy réew mépp jàkk diiney borom bi jëm kanam kenn mënta lim say ambulance waqful nga daara ay palaas yombal nga nit ñi say bagaas loonu deseel laa mënta xam say doole ak say daraja jéppal nga lépp daara ja moo tax nu xippi def la ja ngay sun ginnaaw di sun kanam kon C3S Jokkonjal ku bub ngëneel bi yaa ko jël yàlla na borom bi dolli pal kawel la fii ak feenu jam barkeel nu ful sunuy xalaat xéewal yu fees bay walwalaat yàlla nañ fi yàgg delsiwaat teewal fi gaa yi yor xalim yàlla nañ fi yàgg delsiwaat teewal fi gaa yi yor jërëjëf jërëjëf Diané jërëjëf jërëjëf sëñ Dame Diané ñu tàcc ko bu baax defe naa ñu bari ci ñun liñ bëggoon a wax ci c 3 daam defal nañu ko ak xasida